tout le temps tout le temps ñu ngi tenir ay atelier avec CMU la couverture maladie universelle man damay toog ak ñoom ñu def ay atelier di seet nan lañu mun a intervenir euh, le ministère de la santé ñu ngi góor góorlu mais surtout surtout ci jëfu jigéen ñi maladie euh, cancer du sein ak du l'utérus mais ce qu'on appelle euh, les maladies non transmissibles des na quoi des na parce que imagine-toi un million deux cent cinquante mille francs par malade par mois waaw kooku dafa diis. quelqu'un atteint de cancer lan lay lan lay yëg lan lay yëg en termes de douleur. ah non c'est c'est c'est c'est insupportable c'est c'est insupportable waaw loo xam ne dafay gangrène di dugg sa organisme bi vous pouvez même pas imaginer kooku ma ñaanaluma ko benn nit waaw dafa métti dafa dafa métti mais ñun nag vraiment ak traitement Glivec bi métti boobu doo ko yëg. waaw mais effet secondaire traitement bi nga yëg mais da ngay wax ne nag euh, bon c'est le prix à payer mais ci ngay dund ci ngay dund traitement bi tamit dafa waaw am na ñoo xam ne ñu ngi dégg ñuy wax ñu ngi def chimiothérapie ñi nga xam ne ñu ngi def ay rayon di perdre seen karaw yi euh, dañu mën a nelaw euh, ay affaires yi di évoluer si benn organisme chimio eh, waaw loo xam ne dañ koy dugal ci sa biir la rek ay piqûre la yoo xam ne dañ koy dugal sa biir muy tas muy xeex ak kii bi eh, tumeur ci biir. benn oh, piqûre yu mag la sax <laughs> piqûre yu mag la yoo xam ne ay façon mu ndox mu bëri lañ fay dugal waaw traitement médical la. waaw moom mooy fay waaw ci veine yi lañ koy dugal rek bon muy propagé wu ay seen garab yooyu lañ ciy dugal mooy xeex feebar bi ci biir. léegi lu tax effet secondaire loolu ngay perte sa kanam. waaw kooku nag c' est c' est c' est médical quoi. Mm-hmm. waaw mooy daal dinay dal yu bëri am na ñoo xam ne ay manifestation yu bëri lay feeñee lu dagg karaw rek am na façon manifestation yu bëri sur le plan externe dañ ko yëg. Mm-hmm. est-ce que tamit au niveau Afrique est-ce que am na yenn yoo xamante ni yéen ngi koy dox ay jéego yi ngeen dox. Euh, waaw ñun fi mu nekk souvent association bi mm-hmm. euh, Agile. Euh, ñun dañu bëgg servir de hub waaw pour tous les pays d' de l'Ouest parce que ñu ñun on a la chance de bénéficier de l'université de Dakar université Cheikh Anta Diop euh, euh, can yàgg nañu faj cancer yàgg nañu def ay recherche ci cancer am na benn institut bu mag bu nekk hôpital de Dantec mooy institut Marie Curie depuis ñu ngi ciy faj et ñu am chance aussi bénéficier traitement Glivec bi waaw mais à partir de Dakar da ngay gis ne euh, ay dëkk comme ay Niger ak yëpp ñun ñoo leen di ravitailler ñoo leen di jox bon maa ngi préparer benn rencontre boo xam ne une dizaine de pays africain dañ ci bokk waaw mën nag affaire boobu laa bëgg toog parce que damay bëgg du toog médecins yi di wax toog di waxtaan chercheurs yi toog di waxtaan ñun malades yi ñuy euh, échanger suñu expérience. lu nekk daal gis nga daal cancer daal moom. Euh, waaw ku nekk ngay wax lii moo koy provoqué lii moo koy provoqué lii mooy par exemple man sama professeur bu ma demee daal na ko waa lii nan ma ko jox mais réponse yi may jox ma moom ci boppam wóoru ko waaw ñun dañu toog ba si yàgg tu te retrouves avec euh, ces sortes de maladies waaw ça ça vraiment ay hépatite mi ngi fi Sénégal du fi nekk ci cancer kenn xamul nu mu toll waaw ñi dégg de fois sax nga dégg ne gerte koy joxe lii nga ne diw moo koy joxe lii mooy mais amul kenn ku mu ñëw wax de manière péremptoire na tel produit moo koy jox. et puis euh, de manière intellectuelle quoi xam xam lan la xam lan la boole nit ñi toog waxtaan bon par nature. waaw nit ñi toog di waxtaan di waxtaan pour mun a indi ay solution waaye suñu euh, lu ñu am la maigre euh, moyens yi de maigre yu ñu am ñu jéem ko mutualiser waaw bu ñu ko mutualiser def naa dañu mun a gën ci kanam fexe tout pour dindi cancer ci suñu réew. ci association bu ma bokk depuis euh, cinq ans ma ñu créé association bi trois cent maladies yi fiy def par benn benn nga koy dëgg parce que gannaaw yàlla Glivec bi mu ñu rendre de grands services. il y a des solutions waaw nañu fexe rek nañu fexe rek le plus de personne possible mun leen euh, ñu def seen dépistage mu ne bénéficier ci traitement Glivec bi. merci euh, pour ñu jàppoo rek. waaw gën a jàppoo gën a mën a liggéey euh, parce que xeex la xeex bu métti métti la. parce que boo benn feebar la boo xam ne depuis la nuit des temps mi ngi am ci suñu àddina bi waaw te dañ ko fi war a jëlee koi